waaw mbokki Leewtoo TV gis ngeen ma de ci lamb rek Leewtoo 100 pour cent lamb Babacar la ba tey ak Talla Ndiaye waaye nag damaa dug ci mbedd moo xam ne daal oto bi sax dama ko mujj a wàcc di dox di wër parce que kër gi ma jëm laa xamul gan la daam nag benn champion bu may seet Talla Ndiaye nañ dugg ci mbedd yi xëy na buñ duggee dinañ jëndee ko ah man kat ki may wër maa ngi koy wër te gisaguma ko kon nañ dem xëy na ah waa kii moom bu ma ko gisee man naam ma xool ma gis ki may seet Cheikh Tidiane waaw Babs Cheikh bëggee naa la. waaw delloo bëggee du aw sàkket. Cheikh <laughs> lii la. lii gars yi yor copain leen di ziar. Ah, li ngeen yor nii lan la. Ah, lii pour fan fan la jógee. ah dañuy yónni ku leen yónni. Mboose. kuy Mboose. Mboose. kon taal est feeñu ñu aw sàkket a ngee taala Njaay. laat la. Cheikh sàkket wi gars yor dama laa gis rek sàkket wi génn. Cheikh <laughs> lee lee fu sàkket wi. dëkk ban ñoo joor wala. non dëkku Mboose jegee diit. <laughs> jege diit la Mboose la Mboose dëkk. <laughs> fa dëkk. <laughs> yow yaa fi yaa ko jëli woon wala. déggu ma. yaa jëloon sàkket bi. non non jëlewuma koñ bi ñu dugg mooy ko mooy koñu Mboose. waaw fii mooy koñu Mboose. fii mooy ah. koñu waa jege diit. waa jege diit. waaw Baye Fall. kon nañ dem xanaa bu ñu demee di nga ma won kër gi. waaw dinaa la ko kon ah daa mel ni ñu ngay noddu de ca jàkka ja. nañ topp Cheikh Tidiane mii ndax mbedd mi fi fi fan la fi kër ñoom garga toll pour yow. waaw ngi nii gisoo yaayam. ah kee mooy yaayu garga. Ah, ah kon xanaa ñu nuyu maire bi ba. gàtt na mais kii sax est-ce que du kii doon seet sax man xanaa dinaa gis maire bi bu ci kanamee mais mbër ci loo ne. sant bu wér Babacar. mbaa am nga jàmm. sant nañ baax a baax baax. kon nag su ma neexee ma ne garga mu wasa taaliba Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu. borom bonekaani bi. waaw ba ca Tiwaawan. sëñ Cheikh. <laughs> amini tàll buñ doon buñ doon dañuy dañoo réeroon tamit feeñ nañu ndax gis naa garga moo takkoon ngeem li di bëri seex mii xam ngeen ko gim national mais man li ma ko gis keroog muy def loolo ma yéem man sa jarul ma est-ce que taala januñu dugg ci kër gi no nañ a ah, taala Njaay waaye nañ yem fii waaye fii ay dàq sax maa fii fii moom waa xam nga non fii at fii wër xaa laajte woo leen non non ci kër gi man nag naa leen bàyyi ñu taxaw nii jàkk yéen ñaar ñi wala ma dugg seen diggante man damaa gàtt gars yi nañ ga gàtt te garga mi moo tax daf may gën a siiwal <laughs> gis nga ci moom yi la may def quoi seex sax xaw nañoo tolloo mais kii def maa tiim mais yéen ñaar kan la war a jëkk nuyu Cheikh Tidiane wala garga gan dañ koy ganale kon Cheikh maa ngi lay ziar <laughs> ñu lay delloo ziar Cheikh borom ñoojoor <laughs> digis na yaara tuuma ñoo joor <laughs> yaara tuuma maa na garga bu lan nekkat saa yi ah. <laughs> waaw waa Cheikh yow la ngom garga fa pooxa nga fiya nana gaynde nga ne dellu ca <laughs> jambaar kaari mel fo kiin kor a sungom garga fa pooxa nga mm. garga dig na li koy wax bu baax de garga nekk séeréer ngom mais ngom jee ko yàq. <laughs> baadu. mais man li ma jaaxal yow lu la boole mystique man Cheikh Tidiane équipe nationale Cheikh Tidiane bëree daan Cheikh Tidiane ba pati mais bërki di ma gis la ay xaaw ay laar sunguf ba jën lu ne indi nga ko stade Cheikh Tidiane. kañ nga dugg ci loolu. waaw loolu kañ ko loolu mbar moo si sama mag moo ko indi. Hmm. waaw sama mag ji moo ko indi. waa bagage yi fu ngeen ko bagage yi fu ngeen ko jëlee. bagage yi dara ah yow baaba baab si yow xam nga làmb rek làmb moom lool kii gënu ma koo xam làmb moom mu jiitu si làmb lu mu xam si làmb man xaw ma si dara. ak yi mu takkoon noonu ci. maa jox rek daf maa jox naan ma sama rakk ji am teel ma lii. fu ma naan fu ma jox ma ma jox ko. surtout ma Ansu Ñang nga ba pare. waaw surtout maam Ansu Ñang alquran. waaw waaw léegi alxuraan laa jàng de te suguf laa yoroon <laughs> non baaw seen nag yow xam nga lu ma lay wax bu baax man gisoo foofu ay wala gisoo foofu ay li ay. xanaa yaa ko mu tëj bëre bi. ban bëre. man si arbitre rek mu ne nii. <laughs> non moo gën a xam. nekk waa ji de gauche à ci digg bi ñëw. moom moom moom si boppam man sama koosu la man xaw ma dara si lambu bëre dóor. Hmm. moom moo ma jiitu si làmb moo gën a xam luy war a am man en tout cas daal lu nekk sama xel man naa ko ko wax mais mu waaw mais moom moo ma gën a xam làmb fop xaw ma si dara si bërëdër waaw Talla Ndiaye gargaa ngi xanaa moom booy bi seen diggante sax laay njëkk ñëw quoi dama gis kera ñëpp sonn nañ ci mais moom dama gis kera mu wàcc loo xam ne mosu koo def si làmb kii mën na doon yàq làmb ji ndax lan ah gisoo lu mu def keroog ñëpp la yëngal waaw parce que moom bu yëngoo nit ñi yëngu waaw yegg yóbbu na ma foo xam ne wax dëgg géej naa fa dem non fi nga dem kera moom doy na waar foo xam ne ci biir làmb ji. bu ñu bu ñu bu ñu maîtriser woon suñu bopp tuuti làmb ji yàqu. non man la nga man c'est sama sama wàllu bopp sax balaa may ñëw ci dinaa ñëw ci loolu mais ci damay ñam tuuti ci bëre bi ndax li li gën a am importance taala tey mooy aar bi ñu gis ci biir combat bi li ñu gis nga takk ko li nga ràngoo rabal bi ak tig-tig ya nga sol ak la nga sànni rek def ñetti kii ci yaa ma gën a xam garga Moussa loo koy wax waaw tout d'abord dama koy nuyu di ko ziar di ko féliciter aussi ci grandeur bi mu wane ak wane ne champion la ndax nekk champion du bëre di daan rek nekk champion toujours ma wax ko état d'esprit la te grandeur dëgg mooy mooy mooy def li mu def bëreeg nit ki mu daan la à chaud nga jug dem fekk ji ko félicité ko loolu vraiment geste bu ñuy saluer la te wax naa leen ko dinaa ko seeti ji su ngeen ma ko permettre mën ngeen a ñëw ñu ànd dem seeti dem kay danga may woo lool kay day mën a ne loolu kay du jafe loolu moom maa ko promettre incha dem ba yara amul benn problème parce que naa ci waxam mu ne bëgg na la ngir la dama dem ba ci biir sax man yëf yi xaw ma am wuyul ma kii dama dem ba ci biir yëf yi xaw ma sax tuusa tuuti waaw yëf xaw na ma toujours tuuti parce que vraiment lu rafet la def lu rafet la def. te bi ma bi bi jël bi amee am maa ko dëkk micro mu ne ma dama daan daan ñu di ma daan. kon tey daan nañ ma damay nangu lii la njëkk a wax réaction bu njëkk loolu la wax sama micro. mooy li ma la wax rek loolu lañ naan grandeur nit ku tuuti du def loolu nit ku sew du def loolu li mu def mooy geste noble vraiment maa ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla.

waaw comme mooy favori moom ñu bàyyi ko ak combat bi rek noonu la comme li nga wax rek mais nag bàyyi bi baay bi yëpp bu ñu taxawoon tuuti nag dinañ bëri parce que làmb moom balaa ngay dem da ngay cal da ngay calculer rek une minute bi lay la deux minutes bi lay la troisième minute bi lay la quatrième minute bi la làmb loolu la. kon troisième avertissement ba dina la woon ko fa xaar. non pas man bi ci moom ak man ci loolu ci làmb ji ci loolu la ba woon ndax arbitre dafa am lu ñu géré moom lan moo tax mu jékki-jékki rek ñëw sa kaw noonu. loolu kay moom ni ku yor moom mooy non yoruwul dafa song nag. song na song mu baax. bëri mën naa bañ a feeñ. mais en général fu ñaari bërekat bëree rek bëri bi lu mu gàtt gàtt gàtt dina dina am dina kii quoi dina mais ni nga ñëwee parce que tey loolu moo war a gën a nekk débat bi Talla Ndiaye façon bi ñu la ëndee ak ñii la ëndee ak ni ñu la ëmbee nga ak mit bi nga ci boole bañ na doo wax ak kenn loolu fan la jóge ndigal yooyu. waaw ñun làmb bañ a wax bi ñun làmb la ñuy def. làmb la ñuy def làmb nag lu ne ngi ci. mais fecc mi ngay fecc mi ngay fecc mi nga fecc kera tamit parce que sénégalais yu bëri dañu wax ne lii dañ ko soxla woon ci làmb parce que dañ ko gëj gis maanaam gars yi dañuy ñëw rek def benn chorégraphie dem mais yow da nga saxal cosaan dëgg A à Z ba làmb ji jeex loolu nga euh, demee loolu lan la. mais ne woon naa la gëj a gis bu yëpp. gargaa gëj a bëri rek nay def. asin sawa gargaa gëj a bëri rek garga bu bëri rek culture ñëw parce que man pur sans séeréer la pur sans séeréer laa ci côté yëpp kon bu may ñëw il faut may indi culture et puis sama gars gis nga Cheikh Tidiane Boy Faye Obali Garga de tamit macha allah ñoom Dieuf yaa gën a xam waaw cosaan bi moom dañ koy saxal ba sax moom. Ibou Ndiaye joofi yor Cheikh ñoo joor Boy Faye bul neex sax nga ne Joal ak ndax ak Fatick waa Fatick. waaw Garga Mbossé Fatick. waaw gis nga kon noonu la mën a demee waaw. da nga xam dëkk bu ñuy wax Ngabalu. Euh, loolu fan la nekk. Garga yow itam. xam nga Ngabane. waaw dama lay laaj fan la nekk. non ndax da nga xam laa lay. xam naa ko waaw. loo seq man moom mbooleem fu duma sax wax séeréer mais wax dëgg yàlla bëri naa ay soppe maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn. sa dëkk nu mu tudd foofu ci zone boobu. Euh, sama yaay ngoonin la juddoo. waaw waaye yaayam mbéytit la nekkoon. waaw mais sama maam bu góor jur sama yaay euh, kabatoo ki la dëkk. waaw sama papa Patar Sine la cosaanoo waaw mais Fiisal Mbadaan la juddoo. Fiisal la juddoo waaw. gar la. maa xam Fiisal. ok bàyyi. <laughs> xam mbaa fay xawul xam nga mbaa fay xam naa mbaa fay. xam nga mbel xawul. <laughs> xam mbeloo xeej. xam nga ndondal xam mbel ta dàq. <laughs> ah mais laa dëkk. ñun ñun foofu la ñu dëkk. diggante Joyin Diouroup ah, Mbetit nga yeeg Toucar. ah foofu sunu zone la sunu zone la wax dëgg yàlla ñu ngi ziar ñëpp ku lim juum bugguma sax lii mosuma ko def boo nee séeréer laa rek doy na parce que boo ñoo ngi siin fi mu ne fi mu ne boo demoon Saalum di lim baasul baasaar fayal fa ñoojoor euh, jilaas Fatick jonwaar du du jeex mun de du jeex fépp la ñuy dem Joal Fadiouth tout parce que sunu sunu sunu loolu mooy ñun quoi mu mel kon foofu la jóge parce que li ma gis kera moom dafa ëpp moom dafa doy waar Arsenal bi moom c'est autre chose. sant nañ bu baax sant nañ bu baax mboolem ku ci jàpp ku ci jàpp ak ku ci jàpp ñëpp sant nañ ku tudd ak ku ñu tuddul waaw gaa yaa ngi fépp rek gaa yaa ngi fépp Casamance bàyyiwuma waa Bisari euh, yi nga xamante ni vraiment dañ ma jël def ma seen doom su ma ñëwee dañ na ma yow yaay buur bi séeréer nga waaw jël lépp def sama loxo waaw ñooñu rek laay tudd ñoom boo ko tuddee doy na léegi Garga fu mu jëm waaw man moom maa ngi si làmb rek làmb daal laay def ku ma làmb boole rek pare waaw. am na ñu ne ma garga mi warul di gëj ci làmb. ah loolu nag du yoon. loolu ñu ko wax waratu ñoo seetaan nag ñu gëj ci làmb. waaw saa ca ne ku la làmb ku la bettoon nag avance nga lekk ko. waaw man daal maa ngi pour mbër yëpp. saa rakki Balla Gaye laa <laughs> da ngeen a bokk saal yaak Sa Thiès. Euh, waaw waaw. ba fi mu bi daje ngeen saal di entraîné. waaw souvent ñu daje fa parfois heure yi moo dul bokk mais xam naa ne ñoo bokk saal bi. mais mosu ngeen faa daje même heure. non du du très souvent parfois du toujours quoi mais parfois. mais di ngeen nattante ci wàllum pousse beeg yëkkati poids beeg yooyu. non loolu jaru ko jaru ko lu ñu nattan lu ñu nattante. Ah, bokk ngeen ku leen daan de muy booy ña. waaw yooyu yooyu dara loolu dara bokk kii wu loolu daal. <laughs> da nga dul bëreeg ñooñu wala. non man daal Garga Mbossé mbëru parcelles yi la fi bàyyi maa ngi fi pour mbër yëpp ku ma boole par exemple. Balla de bu leen la am boole nga jël avance. non loolu yegguñ ci loolu saaga yàkkamti xeex la Balla Gaye ñu ngi koy nuyu bu baax suñu grand la waaw. seen diggante yéen ñaar. maanaam. Balla suñu diggante da ngeen am benn relation wala. non amuñu relation nag franchement bu jege mais nit ku baax la nag parce que. Euh, waaw loo sa sa relation ak la noo grand bu baax la wax dëgg yàlla lu baax lay wax si ñun euh, chaque jour nit ñëw nañu diw ne Balla ne lii wala nangam te loolu tamit lu rafet la parce que niveau bu mu toll bu ko neexoon nañu ay boy lañ lijjantiwuma leen wala dara mais Sénégal fii moo li ñuy waxtaanee nii boo génnee fii dégg ko. waaw fii lu fi nit wax ci lu baax wala leneen dañ ciy jot vraiment ñu ngi koy saluer quoi. mais tey bu avance duggoon sa kër ngir moom yéen ñaar lam boole leen nga lekk ko. loolu moom sëñ bi saaga yàkkamte xeex la Balla Gaye fi mu ne nii bokkuñu niveau dëgg la wala dëgg. voilà nañ wax ci leneen. ñu wax ci leneen. Hmm. gongu euh, bu dee parcelle gis nañ keroog bi ngay def open press gis naa Papa Sow ñëw gis naa ñoom Moussa Dioum Modou Lo moom defe naa newut Sénégal sa relation ak mbëru parcelles yi. waaw rafet rek. bugguma sax ñu koy souligner parce que buñ koy tudd day mel ni lii warul am wala lu bees la wala nangam te pourtant lañ séq lañ séqoon daaw ak daaw jeeg yàlla xam na lu lañ séq ba ren Papa Sow lu mu sa xew ci kër gi kenn du ko fi jiitu. pourtant bëri na ak grande. mais bi mu bëree ñu teg ci un an papa moo fi njëkk lu mu sa xew ci kër gi kenn du ko fi jiitu ak yeneen ak yeneen ak yeneen problème mu combat Zos booy ñaa bi yëpp mi ngi dafay ñëw. seen kër man tam lu fa xew bu ma ko yëgee dama fay dem kon relation nit ak nit la ba pare leneen luy ñëw soogu a ñëw mais mention spéciale Moussa Dioum waaw suñu mag la. lu tax parce que dafa sonn ci kombaa bi entraînement yi fi ñuy entraîné ni mu soree chaque jour da doon di ñu encadré di ñu teg si yoon jàpp ci ci côté yëpp nag lu ñu mën a wax ak lu ñu mënta wax waaw. sa relation ak waaw moom nag dañoo gëj a gisante. lu tax waaw ah jot geek yaa ma gën a xam. waaw mais lépp jàmm quoi macha allah waaw. ah lu fi am leen jàmm rek a fi xaj tamit non jàmm jàmm rek a fi am jàmm rek lañ moo fi seulement nit dina toll niveau boo xam ne euh, temps bi du la may yenn yi loolu dañ ciy comprendre ñëpp. léegi tey yaa ngi relax di dallu gars yi ñëw nañu lamb ji jeex na mais am na koo xam ne nag xam nga ñun dañuy indi yóbbante nit ñi des fois Zos da ngeen a bokk nday ak baay. gisuñu ko open press bi gisuñu ko làmb ji te souvent dañ daan gis mbër di indi rakkam ak yu mel noonu lu tax Zoss gisuñu ko. mbër nga wax de Zoss nekkatul mbër léegi politicien la. mais politicien du encadré dëkkam sax indi ko xam na làmb moom la njëkk a bëri. <laughs> Ah, xëy na jot gi moo ko ko mayul rek mais li muy de ci li muy jàpp moo solo teew gi teew gi du dara bu ñëwee bu ñëwul fu muy téye moo ëpp solo. kon dugal nay million. ah non l'essentiel daal diggante mag a rakk moom am na détails yoo xam jarul muy yéeg ci kaw. waaw waaw macha allah sant nañ baax. ñu ngi koy nuyu Zos sama waay la maa ngi koy ziar Zos borom réew mi ah <laughs> mais bu mu duggee ci politique bi yow loo ko wax en tant que frère. non maa moom jubóowuñu. lu tax jubóo ah yaa gën a xam xam nga moom bokkuñu fi ñu far moo tax. waaw man faruma faruma peut-être mais maa ngi moom suñu débat du kii quoi. waaw ci politique dañuy werante ba mu neex. bu fi keroog bu fi ñëwee élection yi des deux jours non te duñu xeex fi <laughs> beneen affaire la. Uh-huh. et puis tamit ñuy gis garga koo xam ne loolu jëwu sénégalais yi nit ku correct ah suñuy wax nit ñee koy wax nit ku correct affaire yu mel noonu lu waral loolu éducation de base la wala lan la. waaw sant yàlla rek nit ñi moom boo defee ñu wax boo deful ñu wax. ñu ngi sant bu baax di sant suñuy waajur di gërëm aussi waa koñ bi ñu dëkkal parce que am na noo xam ne toujours dama koy wax ñun buñ ko melee dañuy tooñ parce que yaruñ ñu si judduwuñ si maaguñ si xëy na destin la yàlla mooy neex nit fii lay jaar mu jaar fa n'est-ce mais ñun tey doon ba du tax ñu changer wala ñu mel ni war a mel quoi parce que même bu dul dara euh, on est appelé on est appelé à être des idoles au moins am na ñaar ñetti nit yoo xamante ni boo dugg see ci làmb ji takk ngemb lu weex ñu takk ngemb lu weex n'est-ce pas nga mel nii ñu mel nii kon ñooñu da nga leen war a servir de bon exemple waaw loolu tam ñu ngi ciy jéem a bàyyi suñu xel bu baax baax et puis soigne suñu image tamit parce que làmb léegi mu jeex ñu nekk ci leneen waaw day ñaaw trop ñu naan diw yaa fi defoon lii wala nangam ak nangam waaw Mm. waaw ñoo far grand yaay sama sëriñ yow boobu <laughs> rek affaire yu baax. ah man de Babacar laa yaay sama sëriñ. mooy nuyu soppe ñi ma sopp yëpp nag ndax sëñ Babacar si ndax am na ay soppe yu bëri Talla Ndiaye ndax sëñ Babacar si. man ñun moom boo laalee boo tuddee sëriñ Babacar si rek laal nga fépp.